suuf at bi suuf la na diggante Aboy ak Fils de Katy Aboy ngi nii Fils de Katy. na Aboy Fils de Katy ci xel ñaari mbëri mësu ñoo daanu cey Aboy bi mu fi mujj gis ngeen mu def ki nga xamante ne mooy caatu montagne këppkatu yelwaan la soo ko gisee da ngay yaakaar ni nduruwul mbër du mbër waaye mbër kaamil mooy Aboy. jàkkaarloog Fils de Katy di leen ni Fils de moo indi woon Fils de Zallo Aboy daan ko kon tey revanche bay jël na tànk ba da koy dëj da koy dëjam déet Aboy jël na tànk ba Fils de wër na ko ndombo yëkkati na ko ba ci kaw ci suuf Fils de Katy na Aboy jël bu amul benn werante lamb xale lamb xale ma ngay jàpp ma ngay jàpp ma ngay jàpp Fils de Katy daan na Aboy jël bu amul benn werante laa ilaaha am na lu ko bett Fils de Katy a ngi noonu daan na Aboy ma ngi koy yëkkati nee na ko champion mbër nga mbër kaamil nga waaye gone gi la xale la xoolal ma la muy def xoolal ma la muy def cey bawol am na tànn na abooy mu koy yëkkati nee na ko champion nga mbër nga mbër kaamil nga waaye gone gi la xale xoolal ma la muy def xoolal ma la muy def cey bawol am na ndam